Euh, monsieur Diagne ak euh, Serigne Dame ah di kontaan nag trop ci Hélène di mu dellu si <laughs> Hélène nag wéetaloon nga ma ni woon sax man sax damay waaj a grève man tamit ah <laughs> naan Babacar su Hélène ñëwatul man bàyyi naa. Ah, parce que yëfi moom xamatuma lu muy nuru. kon nag vraiment c'est un grand plaisir nga ñëw nga ñëw toogaat parce que wéetaloon nga plateau bi ba suñu téléspectateur sax dañu ko doon wax. Mm. Euh, léegi nag. li nga wax ci visite président bi xam nga da nga ni ma euh, nee nañu waxu ko woon ci soxla askan bi je crois qu'il faut faire la part des choses dafa am problème day am contenant ak contenu parfois le le contenant mën na effacer le contenu su ñuy def analyse du discours xam naa ni sañ-sañ bi moo indi problème bi euh, donte solul cravate dafa am ku ni ma bu fekkee ni da nga war dem dëcc day takk or bu boobaa day poser problème na fay fekk saa à nee nañu bërëb bu nekk ak na nga fay na fay demee. Mhm. def naa loolu moo tax te ñun loolu dañu ko daan jàngal ci service social. Mhm. ñamoon benn collègue bu ñu ma saan def euh, formation day takk or bu mu fees bu ñu ñëwee def évaluation moom groupe am ñoo jël ndàdd maa ngi koy nuyu rek du ma tudd tëram mi may déglu <laughs> groupe mooy jël ndàdd suñ ko waxee mu ne waaye man ndekete nit ñi moom la ñuy xool. ba du ñu déglu capter lan lay. lan lay wax. donc dañ la koy jàngal aussi pour bu fekkee da ngay def euh, tu t'adresses à à des groupes. je crois que loolu moo masqué peut-être li mu wax euh, c'est vrai que wax na waxu département mais avant waxu ko département wax na en fait euh, nan la war a mën a régler problème mu mbënd bi parce que je crois que il a parlé quand même. Mm-hmm. de des infrastructures ak investissement yi ñu war a def pour jëlee population yi ci ci ndox bi. Euh, pour restructurer quartier bi ba mbënd dootu fa amati je crois que c'était ça le le message euh, mais en même temps mu mu mu rax si nag léegi dama leen defal départ affaire département évidemment ñi dégg département tey affaire département soxalu leen parce que c'est juste une réforme euh, ay euh, institution restructuration ak redécoupage administratif boo xam ni dafa tëbre wax ko te te amul discussion amul négociation ma xamal ni nag Kër Massar effectivement plus de 500000 habitants dafa dafa bëri am na euh, département yoo xam ne moo leen ëpp nit. Mm, fii ci fii ci mm-hmm. Sénégal. donc bari na nit effectivement euh, laaj na ñu xool ko mais est-ce que c'était le moment c'est-à-dire c'était l'opportunité parce que tôt ou tard le statut de Grand Massar Kër Massar dafay poser wu encore au niveau de du Sénégal. mais problème bi mu am moom moo di ba mu fa foofu nag la nit ñi waxee waxu politicien parce que bu ñëwee ni dama leen di jëlal dama leen di yóbbul euh, département day poser problème. bon posé nañ problème aussi affaire joxe lekk yi euh, mais bi yoon joxuñu leen ñoom dañ leen jox xaalis parce que dañ daan indi ay ceeb peut-être que dégg nañ aussi message yu nit ñi ni soxlawuñu si ceeb bi doyal nañ ko euh, parce que man bi may wax toujours sama référence Médina Gounass bi ñu ko doon def ñoom Demba Seck bi may wax l'aveugle qui voit bu ñu leen mosaan indil ay ay ay ceeb dañ naan bëgguñu ñoom li ñu bëgg mooy suuf lu leen sëkkal fi ñu dëkk ak lu fa jëlee ndox ba je crois que léegi indil nañ leen dimbalu euh, financièrement pour mais pour pour man ce qui était important mooy population yi dañ leen waroon dans la semaine on devait les vider soit de xaw ma dañ leen di tàntal wut waa croix rouge ñu jàppale leen parce que dëkk boobu ñu dëkk ci biir ndox mi problème de santé ba mu a amal population ba loolu tamit dañ ko war a sóoraaleel mais ba tey euh, ndox maa ngi foofu je crois que toog di xaar ndox mi génn fa te te te réglé wul mais on okay. peut trouver d'autres solutions pour mmh. leen de cette situation je crois okay. que professeur ñu jëm ci kii di Maman Hélène bokk si li nga xamante ni moom euh, Maman Hélène njiitu réew mi daal di na ko yëkkati mooy autorités local yi nañu bañ a jox ay lotissement ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi ndax li ni mel ni day firndeel ni euh, responsabilité mbënn mi njiitu réew mi da ko yan ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan jërëjëf Diaw maa ngi sant yàlla mën a ak euh, mën a dellu si ci plateau lii mhm. après plusieurs semaines d'absence vraiment je rends grâce à Dieu di sant ñëpp ñi nga xam ne ci période boobu nga xam ne dama tëdd feebar mhm. bàyyi nañ ma xel ci ñaan ak ci di ma nemmeeku ak ci di ma di ma seet vraiment maa ngi di gërëm Sénégal yëpp mhm. euh, parce que fii ba bitim réew dañ ma doon woo di ma yónnee message chaque jour ay message yu ñaan maa ngi vraiment aw ma aw ma su ma cité kenn rek bàyyi naa ñu bëri bëri bëri bëri te du ay ay kilifa diine yu mag muy aussi bien ci communauté chrétienne bi que musulmane yëpp. Mm-hmm. ñi yóbbante nañ ma ay ñaan ñi woo nañ ma personnellement di ma ñaanal parce que Covid bi nag koo dégg ne laal na nit rek nit que même soo ko xamut da nga koy tiital. da nga koy tiital parce que fitna bi mu àndal la donc loolu aussi vraiment won na ma aussi élan de solidarité. chaine de prière bi nga xam ne sénégalais yi def nañ ko jëmale ko te maa ngi ñaan ñaan yooyu laal ci ñëpp ñi feebar ak ñëpp ñi nga xam ne covid bi am na lu mu wàññi ci seen njaboot ak di jaalaat ñeneen ñi di ñaanal ñi feebar ñu jóg comme man yàlla fëgg seen bopp ba ñu commencé dox seen soxla vraiment di gërëm aussi waa plateau lii parce que nag yéen moom xawma nu ma leen di def chaque dimanche bien que feebar naa maa ngi ci plateau bi ndax par vidéoconférence équipe technique bi maa ngi koy féliciter di ko gërëm parce que Thiès laa daan toog ngeen may woo may bokk émission ba émission jeex mm-hmm. loolu aussi dalal na xelu nit ñi ma déggoon ne dama feebar ñu gis ma may toog di continuer comme niñ ko waxee président nañ dund ak feebar bi